roi 221 c'est le grand entretien mon modèle au avec le professeur Amsatou Sow Sidibé Nek docteur d'état en droit première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques Nek première femme bien nga candidate à une élection présidentielle fille ci Sénégal nous xamee ko ci paix et droits humains ministre auprès du président de la République du Conseil conseiller ci paix paix ak droits humains mom lañu dajal tay ci euh, grand entretien amal waxtan bu yaatu ak mom ci mbirum euh, leadership féminin ak li nga xamantene mom moy violence yi tek jigen ñi sa suné té te mu fës lool jamono ji waye tamit di lembé aduna té duggu ci bir sunu réew euh, sonal askan wi tiital leen muy le coronavirus donc lool nonu yépp dinañ ko tay càmbar ak le professeur Amsatou Sow Sidibé ci sen jotaay bi di le grand entretien maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. ñu jaaxal lool ndax tey jigéen ñi sonn nañu ñu ngi leen di faat di leen faagaagal violence contre les femmes dafa ëpp léegi ci suñu réew. bëgguma nag taxaw di appesantiru ci lan la ñu defal jigéen parce que boo ko defalee ba pare sonal ko dafa mel lan ko defal amul njariñ ndax jigéen bu sonnee yaramam dina ko yëg xelam du demee noonu la mu waroon a def pour am njariñ ci réewam day jafe lool ñu jaaxle nag ndax ni leen daa liñ leen teg dafa mettit te dafa ñaaw ndax bu ñu jëlee jigéen di leen faat yenn faat yi jël jigéen di leen siif maanaam di leen violer yu ñaaw a ñaaw a ñaaw man dama xàmmeetul sama réew alors ma gis nag ni li waral loolu bare na bare na de gaa ngi ci Euh, nit ñi ñu ci bari amuñu liggéey dañuy taxawaalu war a bëgg lekk amuñu ko ñu dem def nit lu metti pour sàcc alalam wala boog ñu jël ay sineebar ay drogue drogué ba seen bopp yi dem ñuy def lu ñaaw ñu suñu société nañu ko wax mu metti lool nag mais ñu accepté ko moom moo tuutal jigéen discrimination moom moo xeeb jigéen moom moo fonkul jigéen ñi fonk jigéen ci suñu société barewuñu te loolu nag moo sonal tey jigéen yi moom moo tax ka nga xam ne bu demee drogué jigéen yi lay dem rey moom moom moo tax ka nga xam ne dafa ñàkk buy sàcc jigéen yi lay sàcc reyaale leen donc suñu société moo demee noonu société bi dafa feebar il faut ñu faj ko mais pour faj ko dañu war a lan man bëgguma ñu jël yef bi nii rek ci kaw lan moo tax suñu société yegg si ba fii lu bare ci cause mais duma ma ni Sénégal nga xam dañu ne pays musulman la naka la interpréter islam ba yëf yi ñëw ba fii ndax islam religion la boo xam ne day protéger jigéen suñu borom dafa fonk jigéen jox ko ay àq ak ay yelleef waaye l'islam mu ngi juddoo ci société boo xam ne nañ ko fàttaliku su xaleel daan juddu nekk jigéen noonu lañ koy jëlee rek suul ko suul ko laa wax suñu borom ne mais lii lan la kii maa ko sàkk sàkk góor mais jox leen leen seeni àq ak seeni yelleef te yéen ñépp leen war a toppatoo borom kër gi dina leen toppatoo baay bi dina len toppatoo chamin li dina len toppatoo ba mu mët sëkk ce qui fait que d'ailleurs ndono namu mu demee woon ñu naan moitié part jigéen benn part góor benn part ñaari par c'est parce que goor mo daan jël entièrement en charge jigen ce qui fait que jigen par boobu mu daan am pour bànneexoom rek la ak la ka ca neex suñu société tay ñi comprendre ni l'islam dafa teg jigéen ca kaw nañ ko waxaat encore une fois mu metti barewuñu ndax comprendre ñu ñoom na dëkk yooyu daan suul jigéen daan dundee moom la bëggee dund tey te loolu mënu am gis nga tey acte état bi war na jóg waaye dañu nekk ci société bu complexe boo xam ne kilifa diine dafa am solo kilifa diine yi ña nekk ca kaw boo gisee xalif yi yu mag yi nii koo ci gis wekk na jigéen xam na palaasu jigéen waaye ña topp ca ñoom ñooñu war nañ leen wax dëgg jàngal leen lan la islaam wax su dul loolu suñu réew ñun duñu xam fu ñu jëm fi ñu jëm nag ndox amu fa ndax ñu ngi faat jigéen ñoo xam ni dañu ëmb mais loolu c'est terrible comme nañ ko daan defee rek di suul jigéen ñi noonu la def tey bon donc man je pense que loi yaa ngi fii bare nañu mais bu amee loi te kenn appliqué wu ko parce que nit ñi gëmuñu ko amuñu gëm-gëm ci loi bi. te dama ni sañu société ndaxam dafa feebar na am ñu ko faj te ñi kay faj tey dama yaakaar ni ñi ci ëpp mooy kilifa diine yi. ndax nit ñi dañ leen gëm di leen déglu kon boog ñoom ñoo leen war wax dëgg état bi nag mooy le principal responsable état bi charte yi tëral mu dem di ko xaatim na xam ni charte yi dañu ne na aar nit ñi góor ak jigéen actuellement nag kenn aarul jigéen yi kon boog loolu mët na jóg te société bi de manière générale quand na xam ni njariñu société bi mooy jigéeni ñi ànd ak seeni bakkan ànd ak seeni wér ñu teg leen ca place bañ leen war a teg bon la kon boog kenn waru ko fowee état waru ko fowee askan wi ko fowee benn kilifa muy kilifa diine aada walla autre war ko fooye ñun nag jigéen li ñu war a wax rek mooy fàttali ni ñëpp war nañoo man koo joxante loxo mobilisation général tey amul xaaj ak seen benn but mooy Sénégal ak sénégalais yi ak ñi dëkk ci réew mi ak même bitim réew fépp feebar bi dagg. waaw mais pour le moment politique dañ ko teg fee sax amul solo leadership bu ma koy wax dafa am njariñ ci affaire bii. affaire ou euh, ba ba ba daan euh, bi mais gis naa ni bi président de la république jëlee ay mesures ñëpp ci d'accord il y a eu un consensus te loolu il faut s'en féliciter wax ko nag léegi ñeneen ñëpp jàpp ci pour mesurer yi ñu mën respecter te jël yeneen i mesures Mais ñëpp am xel responsabilité citoyenne la ñun ñëpp nañu xam ne ay citoyens lañu war a def pour suñu askan am ay ak ak ay yelleef waye am ay devoir ay responsabilité obligation ku ci nek defal d'abord na nga def pour sa bop ak sa famille moo tax ñun jigéen ñi lancé nañu appel parce que ñun dañu am un groupe de femmes leaders bo xam def nañu ben communiqué lancé appel pour jigéen ñi fagaru ba nga xam ni rôle bi ñu wara am muy rôle de veille manam ubbi sen bët ubbi sen nopp bañ neglige négliger dara am rôle de sensibilisation sensibilisation ci mbirum set ci mbirum toog place ci mbirum wàññi xew yi xew ko ba dañu war a muy ngénte muy mariage muy muy leneen muy leneen euh, ba pare nag sensibiliser jàpp xale les enfants nañ leen jàppale parce que xaleel xaleel la jàppale xale yëpp na ya ca kër ga ay ya koñ ba muy taalibe nespa nest sensibilisation bi communiquer moo am solo ndax yéen ñi média yéen a ngi joué rôle boo xam ni bu ñu leen joxee jebbal jébbal leen ko ngeen tasare ko ci àddina bi yëpp loolu mooy solo te yéen a ngi koy def nag gàcce ngaalaama suñu suñu suñu média au Sénégal damay gis ni ba xaaju guddi yéen a ngi sensibiliser nit ñi di wax te ku ci nekk léegi am nga rajo am nga télévision am nga portable nit ñaa ngi dégg kon mbokk yéen seen rôle c'est fondamental ñun dañuy def communiqué ne nii la ñu war a def ku ci nekk bu déggee communiqué boobu dina def li ñu santaane. ñun dégg nañu discours yi président def na euh, déclaration joxe ay mesures mesures yooyu kontaan nañ ci naka la ñuy jëfee beneen affaire la. Nous attiré nañu dans la communication attention qui mise en œuvre doxalin bi parce que quand même da ngay teg ay mesures bu fekkee ne kenn respecté wu ko du am njëriñ kon bokk léegi état bi ak acteurs acteur kilifa diine kilifa aada jigéen góor euh, mag ndaw ku ci nekk rek nga xam dafa am responsabilité gis nga responsabilité bi état am ni boobu la ku ci nekk am de waaye na ko jege ku ci nekk na def veille na def alerte ku ci nekk nekk na def euh, sensibilisation bu ñu koy def ba mu wërngal képp yëfi dina wàññeeku bu baax a baax a baax mais bëgg nañu am nag toutes les informations sur la question je ne sais pas si ça se passe comme ça il faut qu'on nous dise la vérité et rien que la vérité dans tout ça qu'on nous dise tout nañu wax ñaata nit ñoo atteint nañu wax ñaata cas la ñu suspecté nañu wax nombre na nañu wax évolution exacte bi ñay duggoon hôpital fuñ ci toll tey yooyu yëpp bëgg nañ ko xam